ni ba tey ci ci ci ci sujet bi ñuy bi ñuy waxtaanee tey ji sénégalais yu bëri bu ñu découvrir kan mooy Gabrielle Kane c'est à travers benn sujet quand bi nga xamante ni def na à la une nationale et internationale pendant plusieurs semaines muy affaire aji Sarr Ousmane Sonko lan moo tax Gabrielle mu dal di imprégné wu ci boobule dossier pourquoi pourquoi défendre Adji Raby Sarr non mais je me suis pas imprégnée dans un quelconque dossier xam nga euh, nit boo nee da ngay Euh, man benn principe lay rappeler c' est que euh, c' est un moment boo xamante ne ñëpp dañu daw c' un moment boo xamante ne am nañ benn xale bu jigéen bu am vingt ans bu ne dañ ko sàkku mais on a des autorités politiques on a des gens influents yu def seeni délégation dem ci ki nga xamante ne mooy présumé criminel bi di ko soutenir on a une presse en contrepartie boo xamante ne day dem ci fuy di fouiller ci vie xale bu jigéen bi di ko di ko sosal di ko waxal loo xamante ne amul man jigéen la donc bu fekkente ne la presse est et que les hommes politiques naturellement l'opposition dañuy ñëw avec un une une force à charge mais xale bu jigéen bi donc tout ça on fait quoi te bu fekkente ne les associations yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dañu ne teg mais parfois euh, ne pas prendre position c'est aussi prendre position donc ñëpp dañu dem d'un bord on avait une jeune fille de vingt ans li ma ko magee bëriwul li ko dal jomm ma donc c'était un peu spontané irréfléchi mais c'était beaucoup dans la spontanéité loolu la nit ñi xaw la comprendre xëy na tamit parfois nit ku nekk ni nga mel noonu ngay foog ne noonu la nit ñi mel. c'est normal effectivement comme ni nga ko waxee déjà engagé wu nga ci cause bu Adji Sarr depuis là depuis sa engagement lan moo changé ci dossier boobu. non mais man je ne je, je ne rentre pas dans le dossier sama yoon nekku si euh, su ma nee sama yoon nekku si c'est que. dossier bi dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo war a leeral li ci nga xamante moo nekk ci biir dossier bi non mais je veux dire que depuis nga dénoncé depuis nga génn wax yow lan nga sentir moom moo changé ci boobu li dossier avancement bi fa bi ci am. no mais c'est que dossier boobu on sait tous qu'il y a pas eu d'avancement il quatorze personnes yoo xam ne dee nañ ci ba tey on ne nous a pas éclairé sur le sujet ba tey amuñu dëgg donc euh, dossier boobu c'est un dossier boo xam ne se en suspens xamuñu lu xew. leeral yu ñu ñi nga xam ne ñàkk nañ si seen doom wala ñi nga xam ne ñàkk nañ si seeni i seen i seen i jëkkër wala seeni far sax parce que am na ñoo xam ne ay xale góor lañu. Mm-hmm. am nañu ay gel yu ñu bàyyi ginnaaw. Euh, il faut que nit ñi aussi ñu wax ñu lan moo xewoon exactement te tey jii dossier boobu dafa mel ni dañ ko lem teg ko fële te ku nekk di ko laalee bant bu gudd donc c'est ça qui est un compliqué. effectivement sa engagement ci boobule dossier tax ba ci suñu information yu ñu jot yaa ngi recevoir ay menaces yu dul yu dul jeex jóge ko ci parti Sonko est-ce que yaa ngi confirmer euh, diir yooyu noonu ñu wax est-ce que c'est vrai que Gabrielle elle est menacée. menacée insultée violée mais ñoom man j'ai pas j'ai pas defuma dara waxuma waa ji dara. mais mais mais mais est-ce que menaces yi c'est réel est-ce que yaa ngi recevoir. ay appels waaye écoute euh, les les captures d'écran les menaces publiques euh, les menaces les appels au viol collectif loolu je pense que ñëpp ñëpp gis nañ ko dans la presse donc j'ai pas besoin de de revenir et puis même continuellement tey ñi ñi nga xamante ne ñu def yenn yenn yenn sorties contre moi c'est normal mais bu fekkee da ngay réagir noonu mm-hmm. c'est que sa xel dalul quoi. effectivement est-ce que tey yaa ngi xalaat joxe benn suite par rapport ak menaces yi ngay yi ngay yi ngay recevoir non am na am na suite yoo xam am na yoo xamante moom c'est en cours de c'est en cours de traitement euh, est-ce que menaces yi jeex na parce que koo xamante ne day nekk bitim réew euh, di la menacer di la envoyer ay ay ay ay choses wala di divulguer des éléments qui sont pas très exacts di def diffamation kooku mënoo si moom dara da ngay xeex c'est que parfois aussi il faut prendre de la hauteur se dire que c'est temporaire parce que généralement ñooñu xol la ñuy waxee dañu nekk seen ginnaaw ordinateur di wax loo xamante ni daf leen neex mais bisu dëgg bi mi ngi suñu kanam ñun ñëpp fa la ñu jëm enfin j'espère que fa la ñu jëm. effectivement kon Gabrielle prévoirul benn plainte ñi nga xamante ne ñi ngi koy menacé tey. par rapport am na am na ay yu dem ba pare am na ay plaintes am na ay certificats médicaux ay capture d'écran yoo xamante ne c'est en cours donc euh, je vais pas en dire plus.